Cheikh bamtuwaatal li nga wax. bamtuwaatal lim bi. soxna si dafa indi ki turu fondation Soxna Bally Mbacké Mountakha. kay indi adiyee Serigne Touba ci màggal gi nga xam ne màggal ko maam mu ñëw teg ko ci loxo Serigne Bass indi juróom-ñett nag ak ñaari gileem ak fukki tonu ceeb mu teg ko ci loxo sëriñ Bass jox ko comité d'organisation bi daf ko adiyee Serigne Touba lii nga xam ne mooy màggal gu bi yamul ci loolu mu jëlaat beneen adiya jox ko waa Xidma. ndax muqaddimaatul xidma ku ne xam ne seen taxawaay ci wàllu li nga xam ne mooy jumaa ji soxna si xalaat ne dafay jël benn enveloppe 1 million jàppale leen ko ci liggéey Serigne Touba bi daf ko addiyee Serigne Touba yamul ci loolu mu jël ñaari nag ak benn giléem ak ñetti tonnu ceeb ak 50 paquet ndox boo xamee li ci nekk def na 40 paquet def ko addiyee Serigne Touba jox ko jox ko xidma yamul si loolu mu ne dafay jàppale Rawdu Rayaahin yëkkati 50 paquet ndox boo xam ne bu ci nekk def na 40 bu tey jox ko ko def ko adiyee Serigne Touba waaye loolu lépp nag ak tàmbali la bu ëllëgee danañ dem ci quartier bi nga xam ne mooy Daaru Minam jaar ci chef de village bi joxe fa adiyee yoo xam ne dañ leen ko war a jox lu jëm ci wàllu ceeb ak diwlin ëllëg danañ dem def action boobu yamuñ ci loolu bu nu paree danañ jaar ci yeneen quartier yi nga xam ne mooy quartier périphérique yi joxe fa suñu adiyee seen caani waaye loolu lépp nag bàkke fondation bi ñu xamal ne def na action boo xamante ni moo gën a sedd sa xol indi na fi ay médecins spécialistes yu wuute def fi ñetti fan def nañ fi ajjuma def fi samedi def fi dimanche def fi ay consultation gratuit taxawu nit ñi faj leen may leen ay médicaments loolu mi ngi ko def def na ko ci Madiana def ko ci Daaru Minan def ko ci Daaru Xudóos def ko ci Guy Mbind

waaye fan yee ca gannaaw bi mu juddoo ci koor gi def na action yu doy waar yoo xam ne àddina bi teg nañ seen bët yamul si loolu tabaski bii passé jël na téeméeri këpp ak juróom fukk jox leen tabaski loo xam ne fondation bi moo ko def dëgg la de yamul si loolu mu ngi jàppale hôpitaux yi di jàppale néew ji doole ji kon Mbàkke tey dañoo ñëw ñu sàkku si 60 millions la fondation bi tax 65. dañu ñëw Mbàkke. kay ñu signal tay ñaan mhm. ñaanal ñu dogal ñu sa barke maam fondation bi nga xam ne. soxna Baale moo ko waye lepp yow la. dëgg la de dogal ñu ba fondation bi àddina bépp gis ko ba lañu ñu ko tax a ñu am ay moyens mëna japp jàppale talibé mëna japp a jàppale doole ba nga xam fi fii ci dëkk bi lepp luy vulnérable wala lepp lo xam ne luy néew bi doole dana fi juk soxna si sëñ bi loolu moo doon kàddu yi li nga xam ne soxna si waxoon na ko nañ wax pour fondation bi ñu jottali la ko di sàkk ci yow ñaan di jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. wa rahmatulahi wa barakatuh. dafa diis. ne yow sëñ Badou yaa ngi naan def sëñ bi ne mi ngi leen di delloo nuyoo. ne teg ko ci loxol Cheikh Mamadou Fadal. ibnu ak mbooleem sa rakk yi nga àndal yépp ak sa doom yi ne buñ ci tuddee sëñ Modou Rokhaya tudd sëñ Mountakha am sëñ Modou Bousso Dieng tudd ci sëñ Aboom sëñ Bas Mor tudd ci seen Jiili Mbakke moom sëñ Moussa Abdou Aziz ne tudd ci Cheikh Diop ak mbooleem ñi mu fàtte ñépp nuyu sëñ Cheikh Ibrahima. nee nuyu sëñ Cheikh Ibrahima mi nga xam ni dalee na daf si. waaye seen digganteeg moom di benn. nee sëñ bi ne comme sëñ li jiitu ci kaddu yi. mooy sant leen bu baax. gërëm leen. ci ni ngeen taxawoo soxna si. te naka jekk nag. nee taxawaay bi benn la. dara mu see jooyul doom ndax seen jëmm. ne. ma ne jooyul doom. ne jooyul doom ndax seen jëmm. ndax seen taxawaay bu mat. ne fi ngeen war a féete soxna Bally fépp féete ngeen ko ne loolu jiitu ci cant gi. di leen yóbbante nuyoo. ak cant ak xam naa wax ju gudd. ndax sama digg ak soxna Bally. ne mutuma ko seere moom it matul seere ci man kon ci jëf ji rek laay wax nee ñu ngi rafet lu xalaat bi ngeen taxawal ci fondation bi ne loolu nag day gën a jëmmal rek jëf ji waaye jëf ji moom jiitu na ko ne li ngeen fi indi li muy bari bari ne li fi soxna bari indi te kenn tudd ko moo nee lépp weer ngi. bis bu ne mu togg indi ci kër gi. lépp ñaar fukki bool bis bu ne. ak teraanga. nee yi ak teraanga yi muy kon loolu tuuti na ci lii ngeen indi. waaye jëf ji ngeen xam ne nag. da koo jëf ngir jëmmi Serigne Touba. jox waa comité bi. nee ñu ngi nangul bu baax. di ko ñaanal ci barke. maamam barkeb Serigne Touba yal na ko Serigne Touba nangul ak mboolem jëf ya mu àndal yëpp koy def ci bi dëkk bi yëpp waaye nag soxna Bali na ci xelam dal ne ba ca ñaanu Cheikh Mountakha tabbee rek la ci ndam am ba noppi te sëriñ bi ñaan na ci am na ci yéene te Cheikh Amadou Mountakha yegg ci diggam ak boromam. lu ma amul yëg-yëg rek ndam rek a cay kon nag ngërëm li ko sëriñ bi gërëm ak ñaan gi mu ko ñaanal yóbbaale na jëf yëpp jëf na dul doy ndax loo jëf lu mu bari bari fañ koy soxlaa ëllëg jëf dafa doy waaye sant nañ ko bu baax di ko gërëm di leen santal yéen ñu ko jàppale ci liggéey bi ngeen yàgg ko ànd moom te xam ni yéen ñi sonn ñëpp ku ci ne sa diggante moom dëgg la waaye bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa ci moom ak yee am yërmande ci moom moo tax ngeen laxasaayu futtiku di ko jàppale bañ fenn rek bu sëñ soxna baali wéet ne loolu nag sëñ Tuubaa mi amuk pay yàlla na leen fay te fay ko moom mi nga xam ci ngërëma sëñ Touba jërë ngeen jëf na ñëpp tàllal kii nu yabal nag sax sëñ Touba la moom it noppee ñu may Yakham Mbaye ak ñi ma àndal ñëpp xam ngeen ne Yakham Mbaye ci kër gi la dëkk